آلهة قدر دار العسير أواء ثم أداء فاهتدى نفرهم بهديه وبهيد الفار أهناه المصطفى أولاه مولاه كل العطايا وعدناه وآلاه الله تأره والله أرسله للخلق ترا فما في رسل سرواه المصطفى أولاه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 wasalaatu wasalaam ala hayni rahmati rabbaniyati hayni walmaarifi seydina muhammad ibni abdallah wa radiallahu an qutbi l aqtaabi waarisi lmuhammadi lmahlumi ahmad ibni muhammad attijaani radiallahu anhu warida taama an waarisi sirrihima wa masaari faydatima alxadmi alxadmayni kawsari nufuusi yaaquutil xaqi saahibil faydi mawlana cheikh ibrahim ñas radiallahu anhu gannaaw sant yàlla julli si yonent bi salallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne nii ñu ngi koy waajal jëm ci 31 août bi nii ñu jëm ci ndigalal xalifa bi mawlana cheikh mohamadul maayi al xalifa ak ci ndigalal sëriñ aaxibu Niass ak si ndigalal Cheikh Mahmoud Seck nga xam ne euh, kilifa gu mag gu tedd di sacrul fayda Cheikh Ibrahim Ndaw moom moo koy may euh, ñu jàpp ko 31 août bi ñu jëm nga xam ne bés la boo xam ne bés bu màgg ci Serigne Mamoul la nga xam ne mu ngi koy waajal ànd ci taalibe yëpp Serigne Mamoul bés la bum fonk bés la boo xam ne nii bés bu màgg la ci daayira di jameetul birri wal islaax bii nga xam ne ñu ngi aju ci moom kon ñu ngi koy yëgal mboolem jullit ñi di ko yëgal mboolem tijaan yi di ko yëgal mboolem taalibi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass di ko yëgal ñëpp képp ku dégg lii rek nga xam ne moom mooy sa oote. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa alal taabihin wa taabihina taabihina lawum bi ixsaani ila yawmi diin amma baad mbokk yi ñu ngi leen di wax yéen ñëpp salaamaaleykum wa gannaaw buñ jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa su ngeen déggee kalima yu tedd yooyu tagg yooyu nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim tàgg na soppeem bu mag bi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa xam ne moom lañ ubbee jotaay bi kon ñu war a xam ne lu màgg xew na ñu ngi fuglu lu màgg xam ne bés bi ñuy waajal ci ndigalal alxalifa cheikh muhammadul maayi cheikh ibrahim ñas ñaan yàlla guddal fana may ko wér xaadimul xumma ndigalal imaam cheikh tidiane ali siise imam ratib bu Medina Baye ci ndigalal représentant wu fii ci dakaar xalifa bi cheikh Mouhamadul Amin cheikh Ibrahim Niass waaye nag ñu jëlee ndigal li ci suñ sëriñ suñ bunt ci Mawlana cheikh Ibrahim suñ weeruwaay xalifa cheikh Mouhamadul Aqib suñ sëriñ ñaan yàlla yokku leeram ñu ci barkeem waaye ñu jëlee ndigalam ci xalifaam cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu cheikh Mahamadul Aqibu ci guddik zikkar bu nga xam ne ñu ngi koy waajal zakirul xadara di ñu ko may muy cheikh Ibrahim Ndaw nga xam ne àddina yépp dañ ko soxla waaye yàlla may ñi ci occasion mu war a ñëw fii ci Dakar ci parcelle unité 15 pour may ñi grande nuit di zikkar bu mag waaye nag ñu tuddee ko waajal gàmmu Medina Cheikh Ibrahim ñu ci woo mbokki taalibe yëpp di ci woo jullit yëpp du ci woo tijaan yëpp di ci woo taalibe ba yëpp waaye maa ngi ciy woo mboole muqaddami Maulana Cheikh Ibrahim rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkkee Dakar ñëpp di leen yëgal bés boobu nga xam ne samedi la 31 août lay doon à partir de 18 heures incha allahu la jotaay bi di commencé ba ilaa macha allahu ragal naa ne képp ku ko tardé di nga ko rëccu waaye bés la boo xam ne bés bu neex lay doon bés la boo xam ne àddina yëpp a ngi koy fuglu bés la boo xam ne bésu xadara bi la waaye ki nga xam ne mooy teew ci jotaay boobu muy cheikh Abdullah ibnu cheikh Mahamadul Aqib ci présence am incha allah mooy ñëw teewee jotaay boobu ak mboolem kilifa yi nga xam ne danañ teew ci jotaay bi ñu ngi koy yëgal ñëpp ci àndak daayira jamiyatul birri wa islah bi nga xam ne moo nekk fii ci njiital président ak membre daayira bi yëpp ñu ngi leen ciy woo di ñaan yàlla yóbbu ñu ci jàmm te yàlla defal ñu ci tawféex ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu ci barke Cheikhu Tidiane Chérif radiallahu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu Cheikh Ibrahim Niass allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim سيدنا محمد الفاتي لما أخلق والقاتم لما ولادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله خير دار العظيم اللهم صل على فاتي لما أخلق والقاتم لما سبقنا سراق بلاق ولادي إلى صراطك المستقيم وعلى